on a senti la la la coalition vibrer euh, semaine bi euh, et c'est très différent euh, dina dynamique bi nga xam ne euh, noté woon nañu ko début de la campagne. Mm-hmm. Euh, coalition bi dafa dafa gars yi dañoo taxawoon di xaar. Euh, fan yooyu saay bu ñu yeewoo ñu doon laam-laame ne bennoo dafa am crise bennoo dañoo bëgg a changer euh, seen candidat bi say adversaire sax euh, ñoom ñu ngi continuer discours bi la la coalition bi ko tab daf ko daf ko bëgg a changer mu amoon ay responsable yoo xam ne ñoom dañoo taxaw carrément xam la ne duñu dugg ci mbir mi mu am ñoo xam ne dañ doon xaar ndigal jib ndigal ba jib jeudi parti bi doog a yeeweeku nan nga dundee moment boobu en fait euh, xam nga parti bi coalition bi dafa doon coalition bu yaatu coalition bi aussi président Macky Sall daf ci daf ko daf ko marqué parce que li gën a rëy ci coalition muy APR APR Alliance pour la République dafa am relation bu particulière ak président Macky moom moo ko sos ñi ci dugg ñëpp euh, ñi ci ëpp bokk ku ci nekk xam na la euh, personnellement am ngeen ay jaar-jaar et là loolu dafay créer des liens particuliers des liens personnels yoo xam ni am nañ ko ak euh, président Macky Sall maintenant moi en ce qui jëm ci man euh, le choix c'est le président Macky Sall moom moo ko def ànd ci ak yeneen leaderu Benno yi maintenant comme tout choix il toujours ay problèmes yu ndaw yi am saa la tel responsable n'est pas d'accord tel responsable est d' accord tel responsable d' accord na mais nanguwu cee sonn loolu yëpp am na mais bi ñu demee ba xam ni yëf yi daanaka li séeréer di wax caaxaan faaxe daanaka ñëpp ñëw nañu et yaa il faut le noter président de la République dugal na ci loxoom wax ak ñoom euh, insister euh, finalement bu ma ne ñëpp jóg nañu waaye en tout cas li ëpp ci coalition bi c' est un mouvement et Euh, actuellement ñu ngi koy gis bu baax ci terrain bi en terme de de mobilisation en termes de d'engagement bon les images sont là euh, te yëpp ay délai de 24 heures la ñu leen di jox fi mu nekk sama programme suba wala gannaaw suba daanaka c'est à peine la ko gars yi di xam euh, parce que dafa xat on a campagne bi c'est une campagne particulière sur moins de trois semaines ak beaucoup de péripéties avant campagne bi. démarrer arrêter reprendre mais là euh, on rend grâce à Dieu on touche du bois. mais li ñu ci doon wax yëpp lan moo ci lan moo ci dëgg. Euh, déclic bi fan la fan la fan fan la fan la jógee. déclic bi je pense que bi président waxee ça a permis de de de libérer tout le monde hein. je pense qu'il faut avouer que intervention président semaine bi passée ça a été une intervention décisive bu poussée en tout cas beaucoup de camarades. y en a beaucoup hein qui étaient ñu nekkoon ci biir doon euh, euh, doon jàpp ci mbir mi d'autres ñi ngi ci biir mais xëy na sawaruñu woon tellement am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir mais d'accord uñu te ba tey sax am na ñu d'accord là n'est pas le problème mais là fi mu nekk nii mën naa wax ni ñi ëpp ci camarades yi ñu ngi vraiment ci action bi ñu ngi xeex mun naa wax ni sax ñoom ñoo ma gën a bëgg mbir mi et c'est c'est encourageant. da nga amoon problème ak président yëguma ko. mais lan moo taxoon parti bi taxaw ñu ne président dafa bëgg a changer candidat. ti sais xam nga sama diggante ak président li ñu ciy wax li ci ëpp man ci mbedd mi laa koy déggee. ah bon ah li ci ëpp ah j'avoue que président de ak euh, euh, man c'est des de de confiance c'est des relations euh, euh parce que boo amuloon ci man confiance du ma def premier ministre. bu amul ci man confiance euh, du ma proposer comme candidat bi ñuy jógee ci processus candidature bi aussi nekk ci di liggéey je dois avouer que le président m'a beaucoup soutenu m'a beaucoup aidé et continue de me soutenir et de m'aider c'est ça la vérité yenn saa na nga dégg ay histoire diw wax na lii diw def na li mais j'avoue que entre président ak euh, man euh, fàttaliku ma sax ñu wax ba baatam jóge sincèrement donc maintenant euh, man je suis service servi sous son autorité euh, comme ni ngay def ak say agent yenn say mën nañu xëy wax la lu la neexul wala def la lu la neexul walla gis ci liggéey bi wala ci seen doxalin lu la neexul mais ça la s'arrête là gisuma ci leneen